xam dañu toll ci jamono boo xam ni dafa laaj ñu dellusiwaat xel yi dafa laaj ñu nammaat xel yi dafa laaj ñu fàq ci suñu taw ki téye suuf si ba yënguwul téye géej gi ba débordewul kon su la nee dinaa def nangam nga war a xam ne dara bu ko xoolee def li la koy wan mooy ku nekk ci ñun am na lu la yàlla xëy jël ko wala amoon nga baay yàlla xëy jël ko wala amoon nga yaay yàlla xëy jël ko wala amoon nga doom yàlla xëy jël ko mbokk yi ndax keneen ku doon def loolu ku dul yàlla bu boobaa bu ñëwee kenn moo ñaar am kon kenn rek bi subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ni mooy borom bi isul izzati wa jabaru kon kenn rek bi subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ni mooy borom bi isul izzati wa jabaru lu ngeen war a def ndax ñaar rek la am mooy li mu lay digal nga war koo def ak lëm la dig fële li mu la digal fii soo ko defee ci la mu la dig fële muy insha allah da nga am waaye nag cay li mu la dig fii moo làkkee bañ koo def keroog yow ma xiyaam mooy defal sa borom dana metti lool dana tàng lool mbokk yi bu nekk war na xam borom bu la yàlla nee toppuma jaamuma ndabal sañe njaboot sax soo ko amoon ci sa sër di ko digal la koy digal mu bañ koo def ndax di ko bëgg ndax di ko sopp ndax dana am mu yegg ci yow noonu la diggante jaam bi ak borom bi subhanahu wa taala mel kon ñu góorgóorlu waat gën a xam ni ba sa ngi ñëw boo xam ni du jaas te kenn ku ci nekk dañ la sang sang la gas ba mu xool ñu dugal la ci biir mbokk yi ku lay gunge ba su keroog mën naa xar yi doom yi àndandoo yi dëkkandoo yi waaye keroog ci buntu bàmmee la ñuy yem ñoom ñëpp ñu dëkk ci bis koo fay desal sa jëf nga fay desal jëf yooyu nag yu mat a xalaat yu mat a bàyyi xel yëpp jara fekkee borom bi subhanahu wa taala dana def jëf jooju doom sa lumière doom sa wéttal doon koo xamante ni ni dana dalal sa xel kon lis ñu war def taw suuf mooy ñu jaamu borom bi subhanahu wa taala bu fekkee dañu ñu ci waxtu ñaareel bi danga am yoon mi ngi mel ni ku ray baax la saraxe ko bu fekkee danga ñëw ci waxtu ñetteel bi danga am yoon mel ni ku ray xaar saraxe ko bu fekkee danga ñëw ci waxtu ñeenteel bi nag mi ngi mel ni koo xam ni dafa ray ginaar saraxe ko nga xam ni yàlla sax na ci seen xol yàlla sax na ci seen yaram saa bu ñu déggee woote ba seen yaram mënatu la dal seen xol mënatu la dal lu dul rek ñu taxaw wuyu woote boobu nga xam ne moom la yàlla woote moo tax teraanga yàlla di leen ko am teraanga waaye ëllëg fële ñu jëm muy àllaaxira ñu am fantaan bu rëy a rëy su ko yi wootee kii boo xam ni am lu yàlla nammal jaamam yi Moy ñu bàyyee xel ki ñu amal affaire subhanahu wa taala borom bët bu rëy bi nga xam ni gëm bu neew te dara mënu koo rëcc kooku nga xam ni moo la digal te li mu la digal sa njariñ la waaye du wàññi dara ci borom boo ko defee soo ko deful itam ci lay sa la su ko ñu xam ni wa ma xam yi bu nekk bu ñu bos bu nekk dañ koo jox benn bi day wax benn bi day def ñu gis bi wax tam tàggoog ñun moy alquran alquran jamono ju nekk mi ngi wax ak ñu ci li xew ak ni mi xew di wax ak ñu ci suñu dund ni ñu wara dundé ci suñu bir ni ñu wara dundé ci li nga xamanteni moy tax suñu dund rafet moy tax ëlëk ñu am ngërëmu borom subhanahu wa taala ko moy alquran bàyyiwul dara moo tax yàlla ni maa farat naa fil kitaabi min shay'in bàyyiwuma ci alquran dara mbokk yi nokki di ngay nooyu rek benn ku ci nekk rek bu muy dugg am na taxawaay bu war a taxaw sa digganteeg sa borom suy génn itam am na taxawaay bu war a taxaw sa digganteeg sa borom kon mooy wane ni mbokk yi àdduna léppam bu ñu war a bàyyi xel la dara bu ci neex dañ caa war a góorgóorlu beneen bi nga xam ne nag mooy jëf ñu jàkkaarloo moom bés bu nekk. mooy dee mooy ki nga xam ni bés bu nekk bu ñuy yàlla dañu ci wan boppam mooy muy ki nga xamoon ki nga miinoon ki nga fonkoon lool ki nga soppoon ki nga xam ni moo nekkoon sa wéttal am fu mu jaar ko ay waajal ngir mu wuy ji wone boobu nga xam ni du jaas tëg kon mbokk yi bés a boo xam ni yàlla nee na ñu kenn dara dara la ci nit moom lu dul wuy di borom ba kon borom boobu nga xam ne nag moo bind ba